mbokk yi Sahel Network TV la hmm, ñu ñëw ak yéen ci seen yóbbalu bés bi euh, dañu am mbégte nag am kontaan parce que dañ bàyyi xel ne ñi nga xam ne ñoo jàkkaar la ñu ngi am maanaam ñu ngi ñoo topp bu baax a baax so euh, for that ladies or gentlemen <laughs> Do I put it that way? Or, your ladies? Yeah, we have some of our viewers who have been commenting, and this is a very interesting one. Definitely, it's very sad though, but I guess I have to share it with everybody out there. A story of a 32-year-old divorced single mother hmm, who had trouble. Yeah, who had trouble relationship with her husband. Uh, she admitted. She admitted that she was a stubborn wife and never wanted the husband to feel like he was controlling her. Hmm. that's too oh. bad. She always argued with him and usually packed her bags to her family wherever they quarrel. <laughs> and when they met, <laughs> and, and, even meet the police to arrest her husband. Oh, Terrible. The husband lost his temper and beat her up. And then finally, they divorce in court. Now the husband is married, is happily married, while she is still single with their seven year old son. Oh, I read a story like this, but this is very interesting. Mm-hmm. Uh, this na gis story but I'm gonna fa ñëwee. métti na jigéen ji dafa nekk koo ne lu ne ngisi rek na ko mooy fay. lu nekk maa ngi fay jaaduwul. dëgg la bokk nga ma ci catégorie lay bi soo ko seetee tamit. dëgg la sa jëkkër sa jëkkër la. yow warloo bañ ko mu la. parce que soo ko seetee moom moo mooy sa kilifa. te nu ko nu ko mag yi dee waxee. sa jëkkër mooy sa kilifa. soo su la waxee defal lii da ko war a def nga ubbi loo xamante ne loolu sant. waaye su la waxee benn nga ne ko fukka. so loolu naka la muy demee ba pare jigéen bi dafa nekk koo xamante lu nekk rek mhm. moom dafay wax ne dafay wax familleem familleem mi ngi ko wax rek loolu la muy defal ci karam ba mu ngi nii addi en léegi gisuloo moom moo ñaaka góor baa ngee dund di am ok des na des na tuuti well uh, na bi man dama naan si topic bii nii hmm. ana muñ ana muñ dafa réer ana sutura cëy maam réer na maam cëy maam <laughs> doon na lu am solo si dundi doomi aadama dañ ne sëy ah, wel man sëyaguma nag ah, waaye li ma si jot a jàng maa sonn ñaari célibataire yi moom sëy muñ la ak sutura euh. yow tey suñ la yow luñ la njëkk a teg sa bopp bi mooy njoor sooy sëy lan lañ la dee edda suñ la tegee si si si basan ne la demal sëy mm-hmm. kilifay dinañ la wër mm-hmm. dinañ la edda mm-hmm. dinañ la ne lépp lu la sa jikkar def léppa lu mun ti xew sa néegi sëy na em si sa biir néegi sëy bul si am taat paati ah man tey rafetluwuma ko moom mi nekk jigéen tey yow sa jikkar su la xoosee sax su la ne sa yaa rafet rek

tribunal ñoom li la eboon ne la demal sëy tey ñoom suñ la yokkut xalaat tey dama gis ne ah, kilifa yi dañ am a big role pour play sa doom su sëy jee ah. tey sa doom su paagee ñëw daxa ko ne ko demal nga dem toog ku signé contrat nga war a mun a toog ah. su mettee nga ah contrat la man loolu laa Ah. soo signé contrat nga lekk allowance kay moom ah demal toog mbëri ku lekk allowance bëri waaw yow it dam soo nit ki daal lu nekk danga koo jëlee si sa boppa because sëy doon na loo xamante ne si dundi doomi aadama sa jëkkër danga ko war a respect sa jëkkër jox ko ci cëram surtout góor am na yenn yenn saa yi moom mu am ni ñeneen yaa ngi ko ut ñoo xam ne amuñ ko ñeneen dangaa ne sa jëkkër xay sax jaama sax mu ne la xay waaye terewul yaa ngi raam si tànkaam bi di dox bànnee xam waaye Euh, mu ngi laa maltraité dina def waaye yaa ngi am jàmm sa biir kër mhm. lan nga see involvé sa famille ba ñooñu di la wax ne paagal yóbbu ko police defal lii te man rit naa si jigéen bi commentam bi sax gis naa ne tam mu ngi fa bind something like jëkkër bi feebaroon na ba te dal lopitaan jëkkër bi request na pour mu ñëw famille na ko bul dem bul dem mu toog loolu mooy lan ah, moo tax kooku moom génne hôpital moom tam mu bind ko divorce letter ah. ñu dem si code bi muy jaay ne ne lawyer moom dafa bugg a bagages yi yëpp. alal bi moom mu jël fan la jëkkër bi mu ne ko man alal bi yëpp. may naa la jéegal naa la yëpp man. divorce rek laa bëgg. and jëkkër bi tey moom mu ngi kontaan mu ngi toog ak all family mi ngi mi ngi keneen koo xam ne mu ngi ko muñal di ko suturaal. Ah, yow jigéen yow ana nga tey ñàkkuloo ak sa doom yaa ngi toog nag laa ah, doon na lu doy waar tey mbokk yi suñoo seetlu ah, suñoo seetaan ba tey comment yi na daw ngeen indi seen xalaat because li doon na loo xamante ne jigéen bi war nañ ko yokk xam-xam gën koo mun a waxal. Mm-hmm. tey famille fu mu nekk nii kenn faaleetu ko kenn respecté ko. ndawal bi rakkaam yi yëpp ñëpp a koo tuutil. ah te ñu waali ñu ko daan wax ne defal lii defal lii léegi rakkaam yi ñëpp am na njëkk dem toog seen. mu ñàkk sutura des na de suñ mbokki jigéen ñi loolu lañ amoon pour advice leen ñu bàyyi suñu xel bu baax a baax te toog suñu sëy yi incha allah yàlla nañu defal jàmm. jërë ngeen jëf.